ñoom Chris Brown nag ñoom seen euh, seen affaire yi fu mu toll Chris Brown il paraît que dañu ko jàpp démb. Euh, Pape Cheikh dañu ko jàpp démb parce que euh, benn ci xaritam nee na boîte la ñu àndoon jóge boîte mu ànd ak ñoom seen hôtel. after party bi ñu demee ci hôtel bi nag ci la ko ñett ñoo ñëpp daal di violé démb lañ ko arrêté Paris de yóbbu ko en garde à vue entendre ko mais finalement ci ngoon gi dañu ko libéré parce que amuñu benn preuve boo xamante ne. dina tax ñu war ko mun a topp te moom bi mu paree dafa dem ci Instagram bind message nekk xale bu jigéen bi li muy wax du dëgg ko par respect pour famille ak proche am rek du musa a def loolu ci àdduna donc du mus a jël nit boo xamante ne d'accordul mu koy violer donc après xamuñu ndax. xale bu jigéen bi moom moo bëgg am succès moom moo bëgg parce que li gën a bizarre mooy journal yi la njëkk woo pour wax leen ko avant muy dem police di porter plainte oh. donc du coup journal Closer moo njëkk publier information bi avant waa police di confirmer que effectivement il y a une plainte contre viol. après doo xam nit dem na boîte topp nit ànd ak moom la moo tax ngay dem hôtel am parce Euh, bu ñu demee boîte duñ bëgg laal kenn. duñ bëgg jege kenn duñ bëgg jege kenn les gens disent oui dañu bëri ay chichi et tout ça ils font des caprices de star mais dañuy moytu parce que lu ndaw rek mën na leen andi ay jafe-jafe. te sa tur ay génn en fait parce que xale bu jigéen bi porté na plainte c'est vrai mais ba kenn bindul turam. kenn waxul nan la tudd ñëpp xiswaan la ñuy wax. accusé de viol accusé de viol quelques jours après voilà accusé de viol accusé de viol tout le temps boo tapé sa tour actuellement boo de viol arrêté à Paris rek ngay gis donc souvent boo nekkee star je li mu wax yaa war a moytu. mais y a des doutes ah. oui du ma ma gendarmerie mais y a des ku njëkk woo presse bi. ba pare après doog a doog a doog a doog police vraiment y a des doutes moo tax seen staff loolu la njëkk jàngal d' abord c' nga mën a am comportement bi tax doo mën a. Euh, jege sa fan si trop donc c'est juste signé et tout ça américains son très très stricts ci lool lu ñu ko sax café bañu bu ñu bëri bu ñu amee incident souvent ci euh, c'est à l'insu du staff donc soit da nga nekk yow rek nga def ko wala nga nekk feneen yow nga def ko mais jamais. nga ànd ak parce que ñoom xam nañu ko staff bi ñëpp ko violé. loolu la moom. dafa sax métti trois personnes ci benn guddi ñëpp violé ndoo la c'est quand même dur mais bon on espère que c'est pas vrai et que defu ko pour. Euh, si jamais il perd na de. si jamais il perd. mais soo perdre souvent qu'est-ce qui se passe loolu laa xamul parce que d'habitude da ngay gis nit bu porter plainte contre benn star après on va prouver que c'est faux mais nit ki day mel ni du mujj fenn. si donc dédommage ba pare def démenti. oui da donc affaire à suivre ndax dédommagement dina ci am a ah. démenti. Ah, donc de toute façon. <laughs> façon moom déjà def na déclaration am ci Instagram am. juste bi mu génnee ni que nit ki dafay waxul dëgg. Mhm. et que par respect pour famille ak ay proches du mës a ñëw ne day jël benn jigéen di ko yónnee. ça ana kii Rihanna moom. Rihanna dafa porté plainte contre papa. <laughs> contre lan. papa <laughs> eh, kii dañ ñeex nag. teenu lem lañu. ah teen lem la <laughs> ko def papaam. moom la may mu suivre comme xool luñ jotee. ko suivre. en justice MHD moom ci lu mu ne. Euh, toujours en en garde à vue euh, ñi ngi enquêter toujours mais avocat wam il précise que MHD musul nekk fi xeex bi amoon. Mhm. oto moo fa nekkoon parce que oto la boo xamante ne daf koy mettre à disposition des gens de la cité et ça peut parce que cité yi dinañ am relation yi nga xamante ne finalement ay frères ak sœurs la ñuy nekk donc. bu kenn tekkee ñëpp a tekki bu kenn amee oto oto. Hmm. donc la voiture il laisse ça à la disposition des gens de la cité peut-être ñoom ñoo ko fa yóbbu avocat am loolu la pour l'instant mais on peut voir aussi que mi ngi bénéficier ci soutien nit yëpp. Hmm. ay Dadju ay Black M ay euh, DJ Arafat nit yu bëri ñu ngi koy postel ay messages de soutien hmm. euh, pour wax que ni ñu ngi ci ginnaawam et que on espère que il va sortir lui aussi pour l'instant date de tournée mi yi jege. yi jege la ñu annulé mais yi yi jegeegul. dañ bàyyi nañ ko pub bee ngi continuer donc on attend de voir. comment bon, ça va évoluer bon yàlla baax na. c'est un, c'est un, c'est un jeune artiste ah. yu yu xale yu bëgg lool euh, moom euh, MHD on suivra cette affaire.